borom daaru. oui. al Mourti la demeure du donateur. c'est Dieu. Serigne Touba Serigne Touba et borom daaru ne forment qu'une seule personne benn la. la. benn la la. kenn Norini borom ñaari leer. waaw de Serigne Touba. leer de borom daaru Mourti. voilà léegi nii Baye Ousmane Nouré nii mi ngi nii ah. Serigne Modou Kara Mbacké Nouré nii mi ngi noonu waaw les robinets sont ouverts mm-hmm. et ils vont jamais être fermés mm-hmm. jamais l'eau va couler partout waaw l'eau hein Cheikh Ibrahima Faat rek moom moo toppoon borom Sëñ Touba jox ko léppam waaw سفر جيش جنة سفر جيش جنة سفر بمسش جنة سفر بمسش جنة سفر جيش جنة سفر جيش جنة